salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom bi bëgg ñépp nangu yoonu njub bi mu tëral ngir mën a mucc ci mbugalu bàkkaar ba faaw sunu mbégte rëy na ndax li nu mën a dellusi di leen dëgtal seen émission yoonu njub xarit di nu déglu xam ngeen ne bi yeesu dekkee santoon na ay taalibeem ne leen dem leen ci àddina sépp yëgal xebaar bu baax bi mbindeef yépp noonu gannaaw bi yeesu delloo asamaan kenn ci taalibeem tudd pool nee na yàlla woona ma ma nekk ndawam sas ma liggéeyu xamle xabaar bu baax bi xabaar bu baax boobu yàlla dige woon na ko bu yàgg jaare ko ci yonentam ñu def ko ci mbind mu sell mi awma benn werante ci xabaar bu baax bi may waare ndaxte mbirum yàlla la mu làmboo dooleem ngir musal képp ku ko gëm ndaxte xabaar bi day wone ni nit mën a jube ci kanamu yàlla sukkandikoo ci ngëm rekk tàmbalee ci ngëm yem ci ngëm waaw wóor na ma ne yaa ngi naan waaye lan mooy xibaar bu baax bi te ban njëriñ la ma amal kon ma di la xamal ne ndegam neex na yàlla tey ci loolu lanu leen fas yéene indil ay leeral waaye jëkkal xam ne su xabaar bu baax amee dafay tegtale ne xabaar bu bon am na kon bala nuy sore dañuy jëkk waxtaan ci mbirum xabaar bu bon bi nanu fàttaliku fan ak nan la xabaar bu bon bi ame woon ba noppi xam nga ca njaalbeen nga ba yàlla sàkke asamaan ak suuf ba noppi lépp baax lool gannaaw gi yàlla sàkk aadama ak awa tàbbal leen ci toolu àjjana bu rafet boobu ca kaw suuf yàlla sàkk na leen ngir ñu xam ko bëgg ko di ko màggal ba faw wante yàlla di leen nattu ne aadama garab yi ci tool bi yépp mën ngeen ci xewlu waaye gi ci dugg tool bi moom bu leen ci lekk ndaxte bés bu ngeen ci lekkee dingeen dee wante xabaar bu bon bi mooy aadama ak awa dégg lu ñu yàlla ki ñu déggaloon mooy jaan ja di iblis mi leen fiir ba ñu lekk ca garab ga seen tooñ googoo tax bàkkaar ak coono ak dee dugg ci àddina noonu aadama ak awa ak képp ku soqi ko ci ñoom yàqu musiba du yem ci bopp boroom lii nag mooy xabaar bu bon bi kàddug yàlla di waare mu ne dogal nañu ne benn yoon rekk la nit ñiy dee te gannaaw ga la àtte bay ñëw ndaw tiitaange ci ku sàggan ba tàbbi ci loxol yàlla ji dund borom bi dina ñëw ngir àtte ñépp te bugal ñi wedd ñépp ndax ñaawteef yi ñu jëf ci ñeme yàlla di leen fàttali it kàddu yu ñaaw yi ñu ko tifaar ci seeni bàkkaar ak seen weddi xabaar bu bon baa ngi noonu gaa yi maanaam nun ñépp ay bàkkaarkat lanu te faaw nu jaar ci àtteb yàlla waaye sant yàlla ndaxte xabaar bu baax bi am na te mooy foofu ca toolu ajana yàlla aji yërmande ji yëgle na ne dina mësa yónnee ci àddina kenn ku taxul baakaar kuy soqi ci jigéen ju masula sëy kooku moo di ramukat bu jub bi dina jébbale boppam ñu rey ko ngir fay baakaaru aadama ak askanam mbugalu baakaar gi nu yelloo ci moom la nara dal mooy xibaar bu baax bi yàlla yëgle woon bés bi aadama ak awa bàkkaare gannaaw loolu yàlla jëfandikoo na nit ñu mu tànn di ay yonent ñu yëgle ñëwug ramukat bi ku nekk ci yonent yooyu am na mbir yu mu yëgle ci almasi bi ndax bés bu ñëwee nit ñi xam ne kii mooy ki yàlla fal ku ci mel ni yonent yàlla esayi mi jiitoo almasi bi lu toll ci juróom ñaari téeméeri at yëgle woon na naka la almasi bi waroon a juddoo ne janq bu mësula sëy dina ëmb jur doom ju góor ñu tudde ko emmanuel di tekki yàlla ganesi nanu yonent yàlla miise moom yëgle woon na ne almasi bi dina jóge ca kaw juddoo ci dëkk bu ndaw bu ñuy wax betlehem te foofa nag la almasi bi juddoo tembe moona ba ko di wax ay téeméeri at la woon lu jiitu jamono almasi bi yonent yi nag yemuñu woon ci yëgle juddug almasi bi rekk daan nañu yëgle itam ni mu waroon a daje ay coono yu metti te deewal bàkkaarkat yi ci misaal ku ci mel ni yonent yàlla daawuda ak yonent yàlla esayi bindoon nañu ne nit ñi dinañu xeeb almasi bi tëfli ci kawam fitnaal ko dóor ko bët ay loxoom ak i tànkam rey ko wante loolu lépp yàlla dogal na ko ngir mucc doomu aadama yi ci mbugal gi leen doon xaar ndax seeni bàkkaar te yonent yàlla daawuda yamul ci yëgle deewu almasi bi dem na sax ba yëgle ne yàlla du ko bàyyi muy yàqu ci bàmmeelam waaye dina ko dekkal ngir firndeel mucc gu wóor gi almasi bi indil nit ñi barewul werante ci lu jëm ci juddug almasi bi waaye ci lu jëm ci deewam ak ndekkiteem ñu baree ngi ciy fakastalu mu naan nan la yàlla mën a seetaane ñuy toroxal almasi bi mu yónni woon wante li ñoo ñu jàppul mooy yàlla mooy ki dogal ne almasi bi war na sonne noonu ndax sunuy bàkkaar loolu mooy li yonent yàlla yi yëgle bi ñu naan soob na aji sax ji mu gaañ almasi bi ni sarax ngir fay baakaar yi ndax danu dese gëm yonent yi sunu nee gëm nanu leen kon ci dëgg-dëgg danu war a gëm itam li ñu bind nanu fàttaliku ne yonent yi mësuñoo wax ci seen coobare bopp yàlla moo leen daan sol ci seen xel li ñu war a wax kon yonent yooyu bu nu sofantalee seeni wax walla ñu weddi leen kan lanu weddi yàlla lañuy weddi ndax moo leen waxloo woon bi ñuy yëgle ne almasi bi dina dee ni sarax suy dindi bàkkaar ndegam yàlla ko bëgg àddina la te bëggul kenn sànku ci biir bàkkaar mu dogal deewu almasi bi faw nit ku jub dee ngir ñu jubadi ngir musal leen ci àtteb yàlla moom la saraxu mbote yaag xar ya ñu daan def doon misaal ci jamono yu jëkk ya yéesu kirist mi judd ci janq ci kàttanu yàlla mooy sarax si yàlla joxe mu mat sëkk te mujj nag ni ngeen ko dégge ba tàyyi tungu ne du teew ñuy natal sarax su mat si sikkul bu nu ko amee waratunu sonal sunu bopp ci ay sarax yu matadi yoo xam ne dañu koy defaka defaat ndax mën ngeen fàttaliku li borom bi yéesu mujjoon a yéene ca bant ba laata muy dee dafa ni woon lépp mat na fayal na la sa boru bàkkaar benn yoon ba faaw dara desatul ci bor bi dara lenn donga la dese léegi mooy nga gëm ko ni nu ko jànge ci sunu ndoorteel njàngum tey mi mbind mi nee na xabaar bu baax bi mbirum yàlla la mu làmboo dooleem ngir musal kan ngir musal képp ku ko gëm ndeysaan ñu bare ngi bañ a gëm yéesu naan deewam ak ndekkiteem ay léebi neen la ñi ëpp ci nit ñi xamuñu ki yeesu doon dëgg-dëgg moona lin jiil wone na bu leer ne lépp li yonent yi yëgle woon ci almasi bi yeesu kirist amal na ko moo xam mu jëm ci juddoom ci dundam ci deewam walla ci ndekkiteem moo tax lin jiil nannu yéesu kirist dee na ngir dind sunuy bàkkaar ni ko mbind mi tërale suul nañu ko moo dekki ca ñetteelu fan ba ni ko mbind mi tërale te yonent yépp seedeel nañu ko ne ku ko gëm yàlla dina la baal say bàkkaar ci turam ndaxte mucc amul ci keneen ndax ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu war a mucce kon lépp xewoon na temba yéesu waxe woon diirub at yi yeesu nekk di waare ak a jàngale ci kaw suuf ay bañaaleem fitnaal nañu ko ñaawal ko dóor ko te rey ko ay soppem nag ñoom daldi ko suul wante dee mënul woon a téye ca baamel ba ni nu ko gise woon ca ñetteelu fan ba ñeenti jigéen jóg fajar jëm ca bàmmeel ba ñu dencoon néewu borom bi yéesu ba ñu àggee ñu gis bàmmeel ba ubbeeku kenn nekku ca mu ne wéyëng yeneen taalibe ya dem ca bàmmeel ba te ñoom it gisuñu néew ba dara nga deewoon te dekki tàmbale feeñu ay taalibeem lu mat ñeen fukki fan noonu la yàlla firndeele ne nangu na saraxu yéesu noonu képp ku ko gëm maanaam képp ku gëm yéesu dinga bokk ci dundam gu sax gi mu indi loolu mooy xibaar bu baax bi borom bi yéesu kirist dee na ngir dindi say bàkkaar te génn na bàmmeel ba ca ñetteelu fan ba ngir may la dund gu dul jeex njariñu xabaar bu baax bii nag mooy musal képp ko ko gëm kon laaj bi mooy ndax gëm nga ko mbind mi nee na tey ji mooy bésu mucc bi boo déggee xabaar bu baax bi bul dëgër bopp gëmal mucc gi du peyu jëf yu jub ndaxte kenn mënula def jëf yu doy ba tax nga tàbbi ajana muccug yàlla gi du jaay dafa koy maye dafa la ko bëgg a may yéesu fay na ba noppi yow lii rekk la war nga nangu ne yàlla dafa sell te lu tax bàkkaar mënu ko jege fenn walla di ko neex sax bu loolu wéyee nga nangu itam ne nit bàkkaarkat la ni ko kàddug yàlla waxe bi mu naan ñépp bàkkaar noonu nga gis ne amuloo menn pexem jege yàlla yow ci sa bopp bu ko defee nga gëm ne yàlla am na pexe ngir nga mën koo jege pexe mi mooy joxe na yéesu mu dee ca bant ba ngir far sunu boru bàkkaar ca kanamu yàlla te dekki na ca ñetteelu fan ba ngir nu am dund gu jeex noonu soo gëmee ne yeesu mooy musalkat bi la yàlla yónnee mu dee ca bant ba ngir far sa boru bàkkaar na wóor ne yàlla baal na la te dinga tàbbe ajana ndaxte yàlla ci boppam moo ne maa ngi leen di wax yëf yi ngir ngeen xam ne am ngeen dund guddul jeex yéen ñi gëm turu yéesu Kirist borom bi xarit yi tey ji am na ñu bare ñoo xam ne bu jëkk xamuñu woon fan lañuy dem bu ñu deewee ñuy laajte ak gëstu ba gis lu kéemaane ci linjil maanaam linjil xamal leen ne ku nekk mën na xam fu mu jëm bu deewee mboot moomu almasi bi yàlla dige woon ca toolu àjjana te yonent yépp doon ko yëgle moo ko feeñal bi mu naan ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund wax na itam ne man maay ndekkite li maay dund gi ku ma gëm boo deewee it dinga dund ci lu wër mbokk yi li nu seetlu mooy ñi wekki seen yaakaar ci borom bi yéesu ñépp yàlla dalal na seen xel xel ñaaratuñu seen ëllëg leer na nàññ ndax jëfu yéesu ca kaw bant ba dëgg la ci seen dundu taalibe euh, coono ak metit am na wante jàmm rekk jàmm ju bawoo ci yàllaa ngi leen fees kon sama waay fàttalikul ne borom bi yéesu mën na la may dund gu bees soo gëmee xabaar bu baax bi kon nag mbokki déglukat yi fii lanu leen di bàyyi ba beneen yoon mu ngi leen di gërëm ci déglu bi ku ci am laaj nag ci li nu jàng tey bind nu ci yoonu njub boîte postale 370 saint yoonu njub BP Saint-Louis kon na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li benn ndawu yéesu waxoon ne awma benn werante ci xabaar bu baax bi may waare ndax mbirum yàlla la mu làmboo dooleem te day wone ni nit mën a jube ci kanamu yàlla sukkandikoo ci ngëm rekk tàmbalee ci ngëm yem ci ngëm